Ah, mbokk yi ñu ngi waat ñu ngi nga xam ne mooy suñu doyen Sassou Ndour ñu ngi koy waxal jiite li nga xam ne lépp loo xam ne environnement bi parce que mooy muy am ko ah ni mu ko waxee début bi ba mu nekkee ba mu ko falee ne ko xompoon mu ne da nga bëgg nekk xompoon et émergent tey doyen nga ñëw ci li nga xam ne mooy sa satel bi nga xam ne comité bu ginnaaw yi def na ko tey ñu gis à chaque fois présence tey présence bi gën a am solo nga xam ne am solo ci jàppale ginnaaw bu ma rafetloo initiative bi ngeen jël mooy defar seen bopp defar seen dëkkuwaay may remercier ñi nga xam ni ñoo yor comité bi parce que sama ñëw fii si sama bëgg a xam ne li ngay wax ni boo xam ne du ko motivé du ko motivé mooy waa comité si ma sama ko en tant que président de commission environnement légal ma xeexoo bu mel nii

amatuma ko mais ma ñëwal sama en tant que personne ressource en tant que citoyen de xamal indi sama jëmm indi yi nga xam ne mën naa ko indi pour jàppale leen ci bis bi way ay masque ma jënd indi ko sama en tant que citoyen man xamal lu fay nekk dama ñëw sama bopp nekk ci rek nekk ci yëpp waaye def ci lu baax ba ma ci wooyee ma ñëw dëbbale la kon dama ñëw dëbbale ci li ngeen def mën nga ci wax bi da ngay mën en tant que citoyen ngay en tant que koo xam ne maire da ko yabal mu ñëw lan moo xew. ma ah maire yabalu ma ñëwal sama bopp bi ñëwee ci man sama kër seet si ma wax ma ko laaj ni man dinaa ñëw parce que xëy na moyens yi ma amoon ci tëdd bi amatuma ko. moyens yi nga amoon au début lan moo tax. accompagnement bi ma amoon amatuma ko ah ça je le dis devant tous les Koumbola commission bi ñu ma dénkoon xamatuma ci dara ah. on en est ma je ne mens xam rek moom ma laa gëm tout au début ñu ma accompagné woon ma am ma jóg defar man amatuma ko xamatuma ci commission ma ci moom man bénévole kaw aussi ñu jàppale ma dañu ànd ak ay dara lépp lu kii def yëgatuma ko moom xëy xëy rek dara lu ma waroon def benn moo koy def xaw ma ci dara moo tax man li ma wax leen ne ñëwul ma fi meer xaw ma la suma bopp xaw ma lu waay woote boo ci waay ma fekk seen ci bu jëmee ci sama alal dinaa ko yóbbu bu fekkee sama jëmbale laaj dinaa ko yóbbu loolu moo fi tax loolu moo tax ma teew fi tey léegi dana la comme la personne de monsieur Sassou Mboup en tant que président commission environnementale bu Koungheul ndax dañuy avancé loolu bàyyi la personne de Sassou Mboup non ba léegi maa ko doon dama amul jumtukaay ba tey fi may man lañu faral ci mel ni xam-xam li may yaay président commission environnement ah xaw ma outil si dèjà day ma xaw ma xaw ma arme boo xam ne war naa ko mën a ànd a bu municipal di jox pour ma ànd xeexal ko tamit boobu arme amatuma ko mais ma ñëw sama en tant que citoyen sama taxawaay bi taxawaayu président commission dañ ma fal ma dama def ko taxawaay bu yàgga la man xam ma lu ñu defee dañ ma ca defee. la dama ci doon def te dina aw ma benn topp tànk. jërëjëf mbokk yi kooku moo nekkoon monsieur Sathie Mboup nekk ki nga xam ne aussi moom lañ dégg li nga xam ne mooy jëm si environnement bi nga xam ne mooy maire de la commune de Khombole tey mu ñëw jàppale li nga xam ne mooy communauté de quartier bu Guinaw Rail indi leen ay jumtukaay pour ñu mën a dem si set setal bi mais teewul dañuy association bi dañuy continuer rek jëm ci li nga xam ne mooy parce que am na yenn association yu teew ku mel ni ànd suqal suñu gox Guinaw Rail Nord wala Guinaw Rail Est moom la tuddee moom nañ ko teew ak li nga xam ne moo sama producteur moo ànd ak ñoom Ich habe auch schon gesagt, ich habe heute Morgen mal gewundert,